daal di yóbbu ndax xam na ni saa si tembe fi dossier bi fi coow li toll ak fañ ko yóbbu xeex rek moo ci des ngir mën a moom boppam Ousmane naan leen def naa sama testament siyaare naa sama bàmmeelu bàyyi tàggu naa sama ndey lu ca des jàkkaarloog président ki Sall mu faat ma mbaa ñu faat ko tribune yéene kaay ne du yomb de ndax waa Bennoo Bokk Yaakaar ci boppam ngémb nañu jëm ci kaw Ousmane Sonko yéene kaay des média bi daal di sampub laaj fan la nag suñu réew mi jëm ci ak xiiroo ak i ŋaayoo jàmm Moussa Sow bu ko gerne dara jàmmaarloog Ousmane Sonko rek Ousmane Sonko ci boppam respecté wul instruction yi Ousmane Sonko respecté wul xalif général des Mourides Ousmane Sonko respecté wul ay ndigal yoo xam ne ñu ngi koy teg ci kawam sa si temb rek dafa dëkk réew mi dëkk président Macky Sall ak askanuk réewum Sénégal ñun ci boppam ñooy jàmmaarloo ak moom l'évidence yéene kaay ne nan ci wax ku artuwul day di nga àtte coowoo dina am ci réew mi te waxunu ci le soleil yéene kaay en tout cas président Macky Sall moom ma ngay défendre justice nee na yoon ci boppam daañu ko jox cëram ci réew mi lu ko mooy nag làmbaay mooy ñaaw rek waaye day am laas ne ma makee nga sol robam de fas yéene nag taxaw jaamaarloo ak képp koo xam ni yaa ngi song justice bés bi le jour xamal ma ne Macky ma ngay contre attaqué ay attaque la Ousmane Sonko jëloon daal di jor nag ci kaw magistrat yi tey jii président Macky Sall mooy contre attaqué moom kor mareem ne nguur gi ci boppam loo ci manti déggit ak fermeté ci boppam la fas yéene défendre justice ak magistrat yi moom batañee bi naan bal à na sedd turbine yéene kaay en tout cas bu ko xamee bu ko xamul moom président Macky Sall loolee ma ngay àtt Ousmane Sonko Alioune Tine ci l'indépendant yéen kaay nee na kilifa diine yi wax na réew mi wax ndax saa si tembe nag bu ñu waxut mën ñoo dugg ci guuta goo xam ni maar day taali ba yegg ci loo xam ne mënee su ta wàññeeku Babacar ba forum du justiciable mel ni kuy moolu Alioune Tine ci turbine yéen kaay li ngay wax ñu ko ci réewum Sénégal ay kaddu la yoo xam ne amul benn responsabilité waaye tam la nga war a wax mooy ñu respecté suñuy institution Babacar ba naan ko bëgguñu société civile boo xam ne day nekk pyromane di jafal daay bi nga xam ne war na lakk ci réew mi le mandat yéene kaay ne ban xeetu société civile la ñu am ci réewum Sénégal buy dox jàmm wala boo xam ne day nekk ci koñam nekk ci ruqam di def ay maar day taali Moussa Sow ko gère ci turbine yéene kaay ne maar day taali moo dul am ci réew mi xanaa déggu leen li ma leen wax maar day taali ku koy xaar du am ci réewum Sénégal ndax ñoo ngi taxaw l'indépendant ne ma en tout cas boobu sàll ngaari ma ngay doxal moom daal dinay dalal xalif général bu ñaseeni ca biir palais ba turbine yéene kaay ne ma xanaa déggu leen président li mu wax nee yi mooy doon seen avocat kenn justice réewum Sénégal moom président Macky Sall ba futtu la def wax na ci système sanitaire bi nees ko ñoŋal président Macky yi daal wax ci magistrat yi l'info yéen a kaay ne en tout cas magistrat yi moom wax nañ seen dëgg bâtonnier ba daal xamal magistrat yi ne leen indépendance bi ga xam ne seen statut may na leen ko ngeen def ca seen cëgal guy lu leen saf manu leen ko doxalee lu mooy nag da ngeen def seenug liggéey te amul par par loote xoolu ngeen di xalaatee wala it ni di jëfee kenn warta laal seen indépendance ne leen muy magistrat bi nga xam ni mi ngi ci siège wala ci parquet ba seenub indépendance am nag dayoo goo xam ne ni war naa tax du ngeen ko mës a sacrifier ci lenn war naa taxit jëf ju ngeen di jëf ngeen teg ko ci déontologie waaye tam ci professionnalisme buñ leen tuñ le ci biti forcé leen ngir ngeen jëf-jëfu leen day yokk seenu considération seenu respect waaye itam xam ne ay nit yu diñ ngeen batoñee ba naan leen diñ leen mooy dëgg l'indépendant yéen kaay naan man batoñee ba kay xamal gaa yi ne leen waru leen nangu nag kenn di leen di jëf loo xam ne day laal seenug indépendance tribune yéen a ne ma en tout cas la ñu war a wax ci réew mi waxuñ ci de mooy jaamaarloo yi nga xam ni fas na yéen a yeewu ci réewum Sénégal saa si tembe nag ay veillée d'armes moo am ñuy waajal nag xeexoo goo xam ni mën na ñàkk ci mim réew l'évidence yéen a kaay ne dafa mel ni la ñu ne woon fu dëgg amul jàmm dafa fanaan moo tàmbalee am ci réew mi vox populi jox kàddu waa APR ña ngay tëkku nag Sonko naan kon bu dee guerre nga bëgg daa nga ko am ci yéen kaay bi ne déet bal du tàkk sagar du xeeñ Ousmane ko daañu ko atte te du tere Sénégal wéy di nekk fa dëkk neexee libération yéene kaay ne ma boobu réew maa ngi metti gaa yi wéy di sàcc suñu koppar ca lu toll ci ñeenti milliards lañ fa daal di mu ne may ca wéef na cash manager ba moo fa yóbbu lu ëpp ñaari téeméer juróom benn fukk ak juróomi million yéene kaay dee média bi ne ma déglu Limaamu Laay Sekk kàddoom gannaaw ba nga xam ni génn na kaso wax na nag ci coowal bi nga xam ne amoon na sa présidence de la république ak ci ministère des affaires étrangères gaa yi libération yéen kaay ne ma gannaaw atub kaso bu mu tëddoon dañu ne limaamu laay sek mooy serveur ba limaamu laay ne déet naka la koo xam ni ab liggéey kat nga kese homme d'affaires nga nekk serveur loo xam ni ma ngay amee ci biir palais ba ba yub sarax bi kay nañu nangu ne ñun la ay gendarme jàpp nañ leen ci mbir mi te defuñu dara te kat ci jàpp gi trafic de migrants ak lépp nga ci woon daanaka charge yëpp lan te gi bàyyi ci nag bu complicité de faux ci document administratif bu doon dëgg la kay lépp la ñuy atteendoo jàppeendoo ñu ci lépp limaamu ne coow li jeexagul de ndax weñ nga des ca mbànjaxaan nga bu pourvoi bi jeexee dina génn wax lay coow la dëgg-dëgg source aane en tout cas président Macky Sall moom ma ngay wéy di faral ay ñoñam cour des comptes dafa bëgg ñu andi ay réforme moom président Macky Sall ne déet du ca laale magistrat yi daal di sàkku agent yi nga xam ne laale nañ ci mbir mii ñu daal di leen di yóbbu ci chambre de discipline ak financière yi atte leen foofee te procès ya nekk public moom président Macky Sall ne mukk du ca dal cour moom président ba mën a jokkoo directement ak procureur de la république du jaaree ci benn yoon ca ministère de la justice foofu it président Macky Sall daf ne leen dox leen faw yi moo tax leen dépendant yéen i kaay sampub laaj président Macky Sall dëgg-dëgg lan la bëggal réewum Sénégal président Macky Sall lan la bëggal ay ñoñam yéen i kaay bi ne ma saa si tembe ñi ngi jël alalu askan wi di ko caxat-caxatee bambulaa bu doy war am ci ñi nga xam ne ñooy njiit yi dirigeant régime bi ñoo fi yor xaalis bu doon jamono ja ñuy wax tekki ñoo fi tekki ay scandale yoo xam ne ñu ngi leen ci tudd saa su nekk France daal di xidéem ñu nekk ci nguur goo xam ni ab famille ñoo ko daal di wër di ca def la leen saf ñi ñàkkoon ci réew mi ñoo nekk nekk ay milliardaire ci lu matul fukki ak benn waxtu woowu lu sénégalais day mi ngi ci guuta l'indépendant ne ma xiif tongal na ko ñàkk tongal na ko ëllëg goo xam ne mi ngi ànd ak tiitaange ci réewum senegal tongal ko njëkk yoo xam ne daal dinay metti lool lool sax daal di tongal góorgóorlu waxtu woowu ma ne la ay jege ñalu président Macky Sall ñu ngi ci bambula le témoin yéene kaay ne ma bambula ba wéy na ba ci mbalax yoo xam ne ña ngi koy amal ca Kaffrine ña fa amal fees nag di fête culture nee nañu di feccuk mbalax nag ci kaw néewug ña nga xam ne ñoo faatu ci accident yi yi muy bu am te Kaffrine muy bi am te Sikilo l'enquête ko di jeene coow li coow li mooy Thierno Ba daanaka réew mi xam nañ ko it ña ngi koy tudd ci marché armement bi laaj ba samp moom moo di kan moo bëgg nag yàqal Thierno mii gaa yaa nga naan xaritu président Macky Sall la ñenn ñi naan ab courtier la ci équipement bi la tax ñu taxal ko ci looloo tax yéene kaay bi sampub laaj kan moo bëgg yàqal Thierno Ba turbine yéene kaay ne réewum Sénégal fii la tollu ab xale bu góor daal nañ koy enlever ay élément armée ñoo ko daal di def l'armée bi ma nga mobiliser wu ngir wër ko laas yéene kaay ma ca jëppal jëppal ab xale bu góor bu am ñaar fukki at juróom benn moom la ñu faat rakku baayam moo ko jëm mu dal di faatu ci saasi ak lu mën a am mbokk yi nañuy ñaan jàmm te yéen